ngeen gis ko xam naa du ñàkk dinañ jëm am ay réaction un peu euh, ñu koy yóbbu ci këram bu mucc gis nga tey artistes yëpp fi nekk ah képp nga xamante ni artiste la képp ki nga xamante ni euh, comédien nga képp ki nga xamante euh, homme de média nga mais également ah yaa ngi yëngu ci wàllu théâtre yi cinéma gis nga ñëpp ñëpp ñëpp ñu fi bi seen donc bi ni mu bare mu mel ne jëf bu baax rek moo am solo comme ngeen koy gisee di ko constaté yéen ñëpp tey ñu war koo sebal borom dina niko eh, sangé ba paré defar ko ba bax gis ngeen ni eh, nak ñu eh, fi nga xamanteni mom moy mooy almer yo xamné ci en direct merci si voilà dinañ pourquoi pas jël voilà Eh, yéen nga ànd rek ci saint TV Pape Demba Ndiaye yàlla dogal li gën ndax yàlla rek moom mooy eh, buur yàlla moom moo mun yàlla moom moo xamul xol waaye yéen maanaam foo ko natt wees na ko waaye nag eh, jëmb def na li nga xamante ni moom gën ñu nangu ko nag ah, gis nga moom Pape Demba bi nga xamante ni bu mag a mag ah donc j'ai fait ay rôle yu mag a mag a ah def fi ay partenaires yu am solo donc voilà ba ñëpp nangul ko ba sax bi ñu ci gën a ràññee wala bi ci xaw a sax mujj muy euh, bi nga xamante ni da ko doon def série bi mu doon ñàkk fa li nga xamante ni moom mooy idole donc joxe digganteeg ay Oven Prince Oven Evenprod voilà Evenprod boo gisee sax ñun ñëpp ah waa Evenprod ñun ñëpp ñu ngi fi techniciens yi ay Chérif Mal acteurs yu bëree bëri yëngu ci wàllu euh, théâtre bi kenn desul xam naa nag ñoom bu ñàkk bu ñu génnee dinañ jëm jël un peu ñoom seen euh, seen réaction euh, wala seen témoignage jëm ci mbir mi donc voilà c' est vrai que nag c' est un peu compliqué un peu ndax almeer yi donc voilà du ñuy tere fi filmé te lu normal la aussi parce que fi nga xamante ni dañ ngi war a dem ci këram gu mujj فلست ظنيه ولم أكن أنسى وهو المصطفى به طوب روحي عنده القلب يشعر لا إله إلا الله lii noonu mbokk internet ci Sans Lutte comme ni ngeen ko gisee ñu ngi en direct fi nga xamante ni moom mooy Yoff euh, di leen dëgtal li nga xamante ni moom mooy euh, ki nga xamante ni la ko yóbbu ci këram gu mujj muy Pape Demba Ndiaye euh, toll ci juróom benn fukki at ak juróom Euh, ba mu wala sax at yooyu la suñu borom dogal ni dina ko daal di fekk si euh, ñu rafet njort lool si moom ndax euh, kàddu bi benn la depuis démb ba léegi à travers ay jarbaatam mais également ay mbokkam ay sëram nit benn kàddu la ñuy wax mooy am na yërmande bëgg na nit Euh, fonk na diine mais ku bëgg également ay waajuram la témoignage yëpp benn ku oyof la ku oyof xol la également euh, ki nga xamante ni voilà dafa dafa baax lool donc loolu la ñëpp daal di seede jëmbal la ci moom moo tax nag la fañ toog nag mais bu ñu gisee également nombre euh, de personnes wala sax nit yi ni ñuy ñëwee nii macha allah. nu ñu gisee nit yi nga xamante ni ñu fi bare trop trop mais également acteurs yi. li ñu si bari trop trop mooy war a ni moom nit ku kese la woon ñëpp euh, la yemale woon ko bëgg également donc là comme ni ngeen ko gisee bi dugg na si biir gis ngeen suñu papa yi gis ngeen li nga xamante ni moom mooy moom mooy euh, xora dañuy euh, bàyyi ba mu ba mu ñëw jéem réaction am gis mu ngi noonu dugg ci biir di di également gis nañ moom ci biir la euh, lay dugg noonu xam naa du ñàkk également bu génne dinañ ko jël corbillard baa ngi noonu di génn euh, comme ni ñu wax rek bu yàlla ne waaw jàmm ko noonu waaw euh, ñu fàttali moom nag dafa nekkoon en commun daanaka ñetti fan ñu téye ko fi nga xamante ni mooy moo ko daal di ba ñu yóbbu ko en commun en commun donc voilà loolu.

donc voilà ñu mënee nag ñu mën a ñu mën a doxal ci jël ñi nga xamante ne ñoom ñooy njaat di suñu papa moom ñëpp daal di koy nangu salaamaaleykum mon père salaamaaleykum salaam mon père ñu ngi lay nuyu di la yaa ngi en direct ci sans limite ci mais grand xale après d'accord alors ñu noonu donc voilà dañ ko bëggoon a jël ah donc ñu noonu suñu prêtre Ndiack donc moom lañ bëggoon a jël réaction mais voilà ñoo ñu may ko xam naa du ñàkk bu ñu kër ga ah, donc Mouhamed ñu eggee kër ga dinañ ko ñu ngi noonu mbokk internet bi Sans Limites di leen fàttali Pape Demba Ndiaye mu daal di génn àddina démb bi seize heures ak seize ak simili donc fële ci hôpital Fann lañu ko daal di teewoon daanaka ñetti fan mu téye ko fa ginnaaw gën a ñàkk ba kanam démb bu seize heures fekk ay ay xobet ñëpp également parce que tawatam également bokkul ci nit ñi lu ñu doon waxtaanee mais tawatam bokkul ci nit ñi lu ñu yëgoon ndax euh, ñu ngi dégg sax ci xibaar yi euh, tawat bi mu dafa ko doon yàgg di tëral waaye laa ci diñ en fait ba gisuñu fenn fu mu onko wala mu yuuxu wallu looloo waral sax nag ñu baree bari yëguñu woon lu xew ba keroog wala sax démb bi seize heures lu tegal jotee suñu borom daal di def lu gën ñu nangu nag nii euh, en tant que jaam lu suñu borom euh, dogalee rek dañuy daal di nangu ndax moom rek moom comme ni ma ko waxee sànq ci sama tàmbaleeg waxtaan amul xol waaye yërmande foo ko natt weesu na ko donc voilà. jéem a wala euh, bu ñu gisee koo wala ñi nga xamante ni am nañ peut être euh, bëgg nañ ci yéeg yàb bi ñu daal di leen jël ñu wax seen euh, seen gis-gis wala sax seen témoignage si ki nga xamante ni moom la yàlla def mu di génn àdduna suñu borom dogal ko démb bi 16 heures ak Demba di acteur bu mag ah donc di maa ngi ci ànd ak sama sama xarit. maa ngi lay maa ngi lay ziar Ouzin naka tey di ziar mbokki internet sans et ensuite aussi di mastawu milieu cinéma au cinéma au Sénégal et aussi milieu théâtral Sénégal et aussi arcos yépp yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal ñu ngi ñaan suñu borom moom mi dara teewul kii di pap Demba Ndiaye ñu gën ko min ci Pape Demba Lam yàlla ko suñu borom jéggal yàlla na ko suñu borom jéggal mbooleem ay bàkkaaram yàlla na yàlla na yàlla na rëccu lu mu doon lu mu doon lu mu doon ñëwee ci àdduna ndax li moom bés bu ñëpp doon xaar la te it ñun ñii xam nañ ni suñu bés dana ñëw fële nga ko ci beneen armeel ngir uh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku ne xam na ni ci yàlla lañ jóge te ci moom rek rek la ñuy te ku ne xam na alquran waxoon na xalaqal mawta wal xayaata yàlla bind na dee soog a bind dund kon nekke sunu sunu sunu dund gi nu doon dund fi ci àdduna dee la woon waa nekk nekk dee la woon ñoo ngi soogay dund nag ndax dund day sax loolu ni am na ñu ni mooy àdduna fii dañ fee de mm-hmm. léegi nag dee gi guy sax lan war a dund ji mooy yomal xam dañ fay sax mm-hmm. moo tax armée yi boo xoolee baax ya lan ko tuddee baax ya mooy des mm-hmm. yaakaar naa ki nga xam ni turu suñu borom mi nga xam ne mooy albaax yi ku fiy des moom lañ tuddee armée kon ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne dara jomm yàlla na ko sunu borom jéggal te nii rek la mën a demee te alhamdulillah ba rafet na ci euh, rôle yi nga xam ne mi ngi ko doon joué wax fa dëgg yàlla nekk ay rôle yi nga xam ne rôle yu am am solo la nekk rôle yi nga xam ne rôle yu yeete la saa su ne ñu miin ko man wax fa dëgg yàlla mës naa dem ah une de ses prestations wala une de ses conférences de presse bi nga xam ne mi ngi ko doon amalee Douta Seck waaye ni ma ko gisee xam naa ni ku ku dëggu la te alhamdulilah ni ma ko gisee xam naa ni ku ku am gëm-gëm la ku bëggoon li muy def la tey gis nga fi ñi nga xam ni ñoom la bokkal milieu bi yëpp ndax gis nañ fi ñoom doyen yi ndax moom bu ñuy wax théâtre Sénégal ci doyen yi lañ koy qualifier kon tey ba tax ay doyen rek lañ fi gis ñu ngi ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke aljuma ji xel sax dafa dal ndax démb ci guddi aljuma ji ku ci wàcc liggéey ñu lay denc tey ci 11 heures ci aljuma ji alhamdulillahi rabbi ñëpp nangu na ni kat wax dëgg yàlla bés bi gën ci bés gi mooy tey tey tey tey tey aljuma mu génn démb ci guddi aljuma kon ñu ngi koy ñaanal ci barke bés bi yàlla bu ko barke bés bi raw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa na fa dajeeg xéewal gu baree bare ci barke waaye ñun it suñu borom desandi fi mel na waajalee ñu dugg lay effacé nii gis nga Pape Demba Ndiaye bi mu duggee baare nañ turam léegi nag bu ñuy suul bu ñu génnee ñu effacé mu mel na lii lu mat a bàyyi xel la yaram ñi yàq seen seen seen seen deeru ndaw nawle yi war na nañu xalaat bés bi tey ñi nga xam ni fu nu toll ñoo ngi jéem a xool nu nu yàqee nit ñi war na nañu xaar bés bii tey kon euh, yaaram ni <laughs> delloo la kàddu gi bu ko defee ba saa yu ñëwaatee rek incha allah. macha di suñu confrère di suñu xarit également euh, macha allah gis nga lu mu wax euh, am solo léegi ñuy rëdd ne tableau bee ngeen di gis ñu bind ci prénom heure sélection maanaam turu ki nga xamante ni moom lañ fi war a ak heure biñ ko war a waaw ak euh, date bi daanaka ñett yooyu moom mooy ponk yi nga xamante ni moom lañ fa bind waaye nag ki nga xamante ni mooy Pape Demba Ndiaye suñu doomu baay gis nga effacé nañ ko ndax yàlla dogal na jenc nañ ko ba daal di koy yóbbu ci këram gu mujj comme ni ngeen ko gisee waa nga xamante mo tok na noonu moom mooy mooy bind waaye tamit mooy effacé euh, moom bu bu ñu ko xibaaree ni ko am na ko fi fiy jenc te la koy jenc moom da koy noté bu ko noté bu ñu la jencee euh, ba pare moom mu daal di effacé moom tamit ak man ñii di wax ak ñeen ñi ñu seetaan bés dina jot ñu defal defal ñu xeet yi euh, Mouhamed bés dina jot ñu defal ñu xeet yi ci tableau yi bindal ñu suul ñu ñu génnee ñu effacé ñu waaye nag li ñaan yàlla yàlla na yéex li ñaan yàlla également mu fekk ñu si ci jëf ci baax rek mooy nettali borom ëllëg ndax nit loo ko mën a waxal waxal waxal waxal euh, seede ya seede yi rek moo ci ëpp solo ak euh, li nga xamante ni jëflante ngaan na ko jaam yàlla ak digganteem ak suñu borom te moom ñu jot mën na avant sax ñuy lancer suñu direct bi benn kàddu kese la boo gisee sax nag euh, ni ñi nga xamante ni moo doon liggéey ndool muy label de production yu mag yi rawatina bi ci gën a muy event pro gis ngeen ñoom ba ci techniciens yi ba ci caméraman yi ba ci acteurs yi gën a mag liñ ci gën a ak yeneen acteurs yi bokkul également ci yeneen label ñoom ñëpp dañoo ñëw fii dañoo ñëw fii gis ngeen dem également ci vidéo suñu papa euh, Père Lamine Ndiaye gis ngeen dem daanaka wax na bay euh, waaje tuuri xéewal ndax témoignage am solo nga xamante ni def na jëm ci ki nga xamante ni mais mu mel ni nag moom il a été digne en que ñu dégg nañ ci xibaar ni tawat bi yàggoon na ko di dal mais kenn yëgu ko en fait donc mën nañ jàpp ni il a été digne gisuñu ko benn yoon ay mbokkam wala ay am di jaamam di wootee wallu wala di euh, di waya di yalwaan ak yooyu daal gisuñu ko tey bi ma ko gisee xam naa ni bañkat la te nekkul ne xëy na euh, wax fa dëgg yàlla ku ku d'accord moom mës naa dégg ci ay propos mu ni D'accord artiste ñu koy ñu ñu euh, euh, demander kat pour fajj ko bokon na ci nga xamni ne da ko doon xex mu mel wax fa quand même waye ku nek dafa am principe nit amna principe mayu len ñu len di wala ñu demander man par exemple samay principe mayu yow pare temps biñ ci tollé ci ñuy pour ñaf si sunu suñu bakkan des si nga xam ne incha allahu taala bu bu buñ ci tollee kenn bañ ñu ketal waaye moom moom moom moom moom xam naa ni wax fa dëgg wax fa dëgg yàlla ku ku ku ku ku ku ku amoon ku amoon taxawaay la ndax ndax ku ne xam na ni wax fa dëgg yàlla li li li li kat daal nii yombul wax fa dëgg yàlla yombul tawat di ko suuxaale tawat di ko nëbb pour rek bañ kenn xetal la pour rek bañ kenn wax fa dëgg yàlla demande lekkat donte demande aide dara new ci fii àdduna bi ku mënul ku ne am na ku mën ku la mën a teg loxo waaye wax fa dëgg yàlla jàmbaar la woon bañkat la woon ñu ngi ñaan nag suñu borom mi dara yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla yóbbu ca armeer yi ñuy wax ca aljana gi ñuy wax daaru salaam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu noonu ñu ngi noté présence artistes yu bëri ku ne ki nga xamante ni moom mooy soppe ah donc soppe mi ngi suñu ginnaaw Ibrahima Mbaye soppe mi noonu suñu ginnaaw ak ki nga xamante ni moom mooy x x nag man turam nag dëgg xaw ma ko laa xam moom mi nga xamante ni moo nekkoon ci waa event pro maa ngi koy gis noonu mu ànd ak soppe gis nañ moo nekk noonu di ñëw donc voilà ñoom également dañuy ñëw di eh, di pourquoi pas en direct ñu jëm ko jël ni un peu réaction wala ñu eh, bàyyi ba mu génn almeri rek donc ça dépend un peu ci moom mais di leen fàttali yéen a direct fi nga xamante ni moom mooy euh, almeeru Yoff ñu ànd ceeg ak Sans Limites TV ñu ñëw ci euh, euh, enterrement nga xamante ni moom mooy donc voilà. dañu xawa dañu xawa dañu xawa a yàkkamti ñu bàyyi gën islam sa am voilà ñu ñu bàyyi wala ñu jëm jël kaleer kaleer ngi nii ah donc jëm ko jël xam jëm xol alors jël fàttali yaan direct mon père mënu ñu am deux secondes rek nga dugg sa réaction un peu waaw bàyyi ma dugg rek gënaat gaay ah. d' accord nee na ma bàyyi ma dugg gënaat donc voilà ñun ñëpp nag euh, dañ préfère ñëpp tamit ku ci nekk bëgg ngaa barkeelu eh, daal di koy ñaanal ndax loolu dafa am solo ñoom lii rek lañ ko deseel eh, lii rek lañu ko deseel mooy eh, jàkkaarloo xabloom tudd ci suuf si callu ko ay salaati fatiha ah, ñaanal ko ngir yàlla daal di koy sotti yërmandem moo tax ñun ñëpp dañ leen di comprendre bu ñu ñëwee rek dañuy bëgg dugg bu ñu duggee bu ñu génnee nag ñu jéem a jël un peu seen seen seen réaction un peu ak yi nga xamante ni moom mooy ay témoignage yi nga xamante ni ñàkk bëgg nañ ko bëgg nañ ko fësal voilà ñu noonu mi ngi noonu mbokk internet bi fàttali yéen a ngi en nga xamante ni moom mooy Almere Yoff eh, gis ngeen naan ko 8 heures ak 18 heures 45 la eh, waaye gis ngeen mbooloo mi bari lool ñëpp ngi ci biir ah ñëpp ngi ci biir képp koo leen xalaatul xalaat ci artiste rek jàpp leen ni mi ngi ci biir képp koo leen xalaat ci koo xamante ni dafay voilà dafay yëngu ci eh, wàllu showbiz wala wàllu théâtre wàllu média mi ngi ci biir. donc voilà noonu di euh, leen fàttali rek en direct nga xamante ni moom Sans Limites TV donc voilà noonu euh, ñu taxaw ci taaxir bi di ñàkk nag jébbal nañ ko suñu borom ba pare ñaani moo des ak ñi nga xamante ni euh, moom mooy li ñu ko war a donc voilà taxaw jëm leen fii ci ameeri yoo fii donc voilà di leen fàttali rek Pape Demba Ndiaye di suñu borom daal di jël lii noonu ah donc bokkante bi sànni di leen fàttali rek ah ñu ngi en direct fi nga xamante ni moom mooy Almere Yoff euh, ñëw ci ci euh, ki nga xamante ni moom mooy Pape Demba Ndiaye bi nga xamante suñu borom da ko jël démb ci hôpital Fann bi 16 heures rek tegee bi 16 heures ak mu teg jotee ñu ngi fàttali aasam ne ñu ngi toll ci juróom benn fukki at ak juróom juróom benn fukki at ak juróom la di tawat boo xamante ni si xibaar yi ci am daf doon faral di daaneel di wër tànkan waaye moom comme ni ko waxee léegi sama collègue bi daal di koy biral ni moom musul bëgg eh, ay ket musul bëgg ñu koy ñaanal ndimbal Atlanta eh, dañuy wax à chaque fois nag ñoom artiste souvent bu ñu tollee ci situation yi di tawat donc souvent dañuy demander ay aide wala wala sax léeg ñu leen annoncé naan dañu génn àddina yàlla dogal na ñu ngi dund ba xoolee sax démb information bi boo xoolee 16 heures ak lu teg la daal di génn àddina mais boo xoolee ñu ngi ko commencé di partagé bi 18 heures jotee parce que tout simplement nit ñi dañuy ragal yooyu ndax saa su ne dañu leen di annoncé ni dañu génn euh, dañu génn àddina te yàlla dogal ñu génn

jël ci bis ni ko tey ci à sama école juróom-ñeent fukki at ak juróom borom suñu borom daal di koy jël donc ñun nag dañu taxaw fi ñu am toos pour jël li nga xamante ni moom mooy témoignage ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk mais ak ay mbokku africain mais également ak ay nawle artisan mais di ko jaar ñëpp ah di ko jaar voilà muy moom donc pratiquement fii ah donc boo xoolee ñëpp ñu di xaar parce que dafa solo gis nga nit nag saa yu génnee àddina euh, li ñuy euh, li ci am solo bu weesee ñaan yi ak li nga xamante ni ma gunge ko ba ci këram bu mujj da ciy baax da ciy baax ñu jël li nga xamante ne mooy témoignage nag ku si nekk rek am na foo jaar am na fu mu jaar ak yow. ba génération bu bees bi ñenn ñi daf leen formé mais ñenn ñi également ay génération am ba xoolee ba xoolee ñoom Dembis ñoom Dembis Fall ñi nga xamante ni ñoom ñooy càgg ak ñoom soppe boo xoolee ñoom seen daanaka seen génération la bokk seen seen génération euh, la bokk donc voilà donc ci am ñëpp nag ku ci nekk jël ko nga wax si fi nga jot jaaral moom ak ñi nga xam si moom. ak lu rafet li nga xamante ni war na ko gëral jëmale ci jëmale ci jëmale ci moom voilà ñu ngi noonu ومرامة الريف وأدى وأنفع لمكة بالمصاع بخيف ومشعر ضياء رسول الله للطرف يضمن غار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي بي أتمتع محمد عبد الله أحمد راقبا بحب الإمام الهاشمي أتشبع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نذير ماحي الكفر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 عليك صلاة الله ثم سلام فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلام أيوة. لقاء كحسم الدير للقلب موجع ويوم كألف من سنين قصيرا نفسي بذلك أه؟ عليك صلاة الله عليك صلاة الله ثم سلامه